dalati leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook vox populi mi desuwaat ci jëf ju rëy ji nga xamante ni président Macky Sall def na ko jagleel nga xamante ni dañoo jëm retraite yéenekaay bi ne ku ci nekk nag nampaay na la luy toll ak 2 jàpp 5 millions de francs CFA ci lim gu toll ci 2238 militaires président Macky Sall fas yéene jël ay mesures sociales yu exceptionnelles pour mën a taxawoon nag suñu militaire yi nga xamante ni dañoo jëm retraite waaye ci wet ga moom président Macky Sall dellusiwaat na ci élection présidentielle yi tey dalal xelu askan bi ne du am élection yu ko gën jaar yoon libre pourtant ni ki démb ca tribunal bu Dakar ñu ngi doon jugé nag dossier président Ousmane Sonko bii ñeel wàllum radiation yéenekaay bi ne délibération ba dañ ko mujjee puus ni ki suba la ko juge bi bëgg a àtte li waral li ni mel nag moo jaaxal ñépp en ñaari camp yépp déglu dañu leen maître Ciré Clédor Ly di avocat Ousmane Sonko mi ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne ñun daal soppi suñu taxawaay dañu plaidé woon ci juge bi dina dëggal nag instance te jaru ko woon ndax tribunal de la grande instance de Dakar mënul ëpp dayo laa la wax cour suprême te cour suprême nag boo gisee taxawaayam ci dossier bii mooy jox na dëgg nag état bu Sénégal léegi fa yéene kay moom desuwaat ci defante gu métti gi nga xamante ne amoon na ni ki démb entre avocat yi ñi farek Ousmane Sonko ak ñi farek état bu Sénégal yéene kaay bi dañu nettali la xewoon démb ca biir tribunal ba ne maître Ciré Clédor Ly jàpp na ne ak lu mu métti nag gii dana respecté procédure lu mënti xew ëllëg tamit moom état moom mooy responsable bi maître yéenekaay bi ndax xeex bi jeexagul de xaaj laa la wax xaajagul bay jeex ndax gëm nañ ne procédure yi dana ba coow lu ba dem na sax bay xam le moom maître Babacar Ndiaye ne li ñu mënta comprendre moo di lan moo tax ñuy yokkaat dossier yi di jël yeneen i document di ko ci yokku lépp ngir mën a justifié ci seen taxawaay ñoom état bu Sénégal maître Larifou avocat Ousmane Sonko Sonko ne lii yëpp de xamoon nañ ko xamoon nañu ne état bu Sénégal gii mu ngi ci ay erreur lii moo tax ñu gis la xew démb nag ca biir tribunal ba moom nag nee na yëf yi daf koo bett ndax état bu cuuna dogg nag mooy ñàkk respecté procédure procédure bi ni mel nag moom la saba Sabassy Faye waxoon ne respecté wuñu ko li ni mel nag honoré wul Sénégal agence judiciaire de l'état moom di xam ne ci biir yéenekaay bi ne yénn ci ay kàddu yu ñu dégg fii ci biir saal bi ay avocat wax ko dañoo nekk ci pays démocratique rek waaye bu ñu nekkutoon ci réewug yoon laa wax heure bi waxatuñu ko ndax yow avocat mi tuumaal état bu Sénégal di leen ooyee bandi ci naan ay woyu lañu yoon mënoon na teg loxo ndax gënoon ak ñi nga xam ne la jàpp di leen dugal ci biir kaso bi yéen nag toog leen fi rek di accusé de moom dafa yokk ci xar mi karaw tontu na maître Babacar Ndiaye avocat Ousmane Sonko bii di wax ne état bu ay bandi lañu moom maître El Hadji di xam la ci biir yéenekaay bi ne gis nga ëllëg ci la xam kan mooy bandi bi kan mooy voyu bi bu fekkee ne liy dagg seen xol mooy Ousmane Sonko mii di bokk ci la xew ci tribunal ba yéeme na lool waaye teewul juge bi ba mu déggee ñaari parti yëpp la mu décidé moo di bàyyi ba suba ci alxamis ji muy soog def nag délibération waaye audience démb bi yéenekaay bi xamal nañu ne metti na de juróom-ñeenti waxtu yoo xamante ne ay daggasante xuloo dong nag moo am ca biir salle ba maître Bamba Cissé di avocat Ousmane Sonko di xamle ne man de mbiru justice ni mu simple woon bu njëkk ak kaa Ousmane Sonko bi ni mu compliqué lii yëm na ma lool lan moo tax dossier Ousmane Sonko yi particulier de un nanguwuñ koo vidé ñaareel bi moo di fu ñu suul lak daal man lu ma jaaxal la yemu moom maître Bamba Cissé nee ko sax alxamis ji bu juge bi joxoon dëgg tey Ousmane Sonko dinañu bàyyi Ousmane Sonko mu bokk ci élection présidentielle yi ndax ñi ñu jàkkaarloon seen objectif moo di Ousmane Sonko du nekk candidat moo tax mën nañoo ubbi yeneen i procédure ba noppi sax mën nañoo ñàkk respecté nag décision juge bi ndax état Sénégal ñàkk respecté nag décision juge weesul bi la fi woon fàng-fàngaaral te kenn respecté ko mooy décision bu juge Sabassy moo tax ni ki suba ci alxamis ji bu juge bi jëlee décision tam gëw ma ne état bu Sénégal ji ko respecté beneen dossier bi nga xamante ni fi mu toll nii mu ngay jur coow di révélation yi nga xam ne maître Moussa Diop def na ko ci suñu jamono yi nga xam ne nee na bu Sénégal président Macky Sall en personne ak Mimran ñoom ñoo séq benn dossier boo xamante ni Sénégalais yi yëgunul xew mooy mbirum exploitation jamono yi yéenekaay bi def ci révélation bu rëy tañuy xamal ni démb day maître Moussa Diop mujjut a procureur dañoo mujjee reporté nag audience ko ba suba la na moo tax démb maître Moussa Diop demul ca tribunal bu Dakar mooy dañuy bañ télescopage ci militant wu Ousmane Sonko yi ak ay militant am comme que neexoo wuñu wóorul ñu daat fay dajee lii moo tax ñu daal di randal jàkkaarloo gi mu waroon a jàkkaarloog procureur ni ki démb ci tribunal bu Dakar suba la war a jàkkaarloog procureur mais yéeni kaay bu ñu xamal ne tamit suba la rendez-vous bi nga xamante ni Ousmane Sonko du ko fàtte ndax ci lay lépp di leer na ci wàllum radiation démb nag ca tribunal ba jàng nañ fa ba jàng fa alquran récital coran laa la wax am na fa fekk jamono jooju ca diwaanu Podor candidate à la candidature bii di Anta Babacar Ngom gendarme yi dañ ko doon gazé ba mujjee faa gaañ laa la wax yénn ci ay militant am lii nag metti na ko lool ba moom Anta Babacar Ngom dafa déplacé wu ba ci kanamu gendarme yi di leen laaj jëf ji lu tax ngeen def ko le actu moom def taxaw seetlu ci geste bi nga xamante ci coowal fond nga koy tuumaal nag leader di président Ousmane Sonko lan moo tax député du peuple bii nag di choisir wax ci yenn dossier waaye lu laal Ousmane Sonko moom te tuumaal ko daf naan ci tekk tekkaaral en coowal fond yi nag moo jiitu coowal maître Moussa Diop bi pourtant moom Guy Marius Sagna saisir na assemblée nationale pour ñu taxawal a l'observateur moom def taxaw seetlu ci Amadou Ba double casquette bii mu sol la nekk ci ginnaawam double casquette bii mu sol na yenn ci ay responsabilité am nit ñi duñu sax ban taxawaay la ci am est-ce que taxawaayu ministre bi la wala candidat bi jaxasoo gi am ci mbir yi nag yéenekaay bi xamal nañu ne système bi ci boppam moo deful ay garde-fou maanaam ku fi nekk candidat mënutoo nekkati ci biir gouvernement lii moo tax fi mu toll nii Ba casquette bu ko neex sol waaye lu jëm ci dossier jama bi nga xamante ni maître Moussa Diop ci boppam moo def révélation yi yéenekaay bi xamal nañu ne Aly Ngouille Ndiaye convoqué nañ ko ca sûreté urbaine dana dem wuyu ju yoon bu dee Ousmane Cissé na convocation am bu dee maître Moussa Diop mi nga xam ne moom moo def révélation yi moom garde à vue am prolongation ndax démb la waroon a jàkkaarloog procureur waaye dañ ko mujjee puus boo maytul suba lay jàkkaarloog procureur léegi ko yéene kay di ko dëggal na suba kay boo maytul ñu defeere nag maître Moussa Diop lu wértéwur mu génn ci prison bi dem ñibbi non loolu kenn séentuwu ko ndax ba tey ji maître Moussa Diop bëgg ta joxe nag ay source am yéene kay bi desuwaat ci procès Ousmane Sonko bii ñeel wàllum radiation démb ca tribunal bu Dakar la fa xewoon ba ci biir Ndakaaru Njaay benn taxaw seetlu dong nag la ci yéenekaay bi am mooy Ndakaaru Njaay moom yëngu-yëngu amul calme plat moo am ci mbedd yi avocat yi nag moom ñoo doon xëccoo ca biir tribunal ba waaye à part loolu amul dara dara lu xew laa la wax ci mbeddum Ndakaaru yi du manifestation du pression bu dee commerce yi ñoo ngi doon dox bu dee élection de représentativité yi ñu doon programmé ni ki démb tamit am na élèves yi jàng nañu nit ñi dox nañ seeni soxla lii wuuteeg loolu nag procès Ousmane daan demee ba tey yéenekaay bi Est benn sàkkide moo yoraale fetalam visé kër jigéen yi nga xamante ni seeni boroom kër nekkuñu fa soit dañoo dem bitim réew wala boog dañuy xëy di liggéey kër gum ci mënti dem nag day jéem a sàcc bu gisee ne kër ga mënu faa am dara mu fexe ba gis femme mariée ba fa dëkk jël fetal teg ca bopp ba fas yéene koo tëddee nag ci kaw lalu jëkkëram lam ko def nag ci ay jigéen foofu ci duwaanu Rufisque Est lim nga kenn xamul nu mu toll waa gi daal sàcc la te ña mu visé moo di femme mariée nga xam ne seeni boroom kër duñ fa nekk <laughs> waaye comme que jàpp nañ ko rek seen youtube bi di Mourchid TV tey gën a bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar ñu yendoog jàmm ba subaak jàmm incha allah